asalaamaaleykum mbokk Sénégal man Maimouna Loum Bousso maa ñëwatoon tuuti rek ci waxtaanu sensibilisation ci euh, feeb mbas mi nekk ci àdduna bi muy Covid 19 di leen sensibiliser si solinu masque yi di ñaan ngeen góor góorlu ba masque yi bañ a doon loraange ci yéen parce que masque yi def ñoo war a aar waaye waruñoo lor. pour loolu mën a am nag il faut kenn suñu ku nekk xam ne masque bi muy jënd ci pharmacie bi waru koo takk lu weesu ñetti ba ñeenti waxtu bu ci noppee da ko war a sànni ci mbalit boo xamante ne dafay tëju pour ñi nga xamante ne dañu préféré jënd mask yi ñi ñaw masque yooyu boo ko takkee itam boo ñibbisee da ko war a fóot ci ndox mu tàng boo paree weer ko ba mu wow nga paase ko ak fer bu tàng doog ko war a mën a solaat kenn ku nekk war naa góorlu bu dee masque bu ñuy fóot la ba am ci ñaar ba ñetti masque ndax benn masque kese suba ba ngoon itam mën na laa indi loraange te képp ku ciy dindi masque bi na nga moytandiku sa loxo di laal masque bi ci kanam masque bi boo koy dindi ci élastique yi nga koy solee boo koy dind itam ci élastique yi nga koy dindee ngir sa loxo ba a laal fi nga xam ni bu doomu jàngoro amee foofu lay taxaw nañu gën a góorlu ci suñu nekkalin ci suñu dëkk suñu nekkalin ci biir kër yi bu fekkente ne mën nañu am ku ñu yónni mu dem ñëpp bañ a génn loolu mooy li gën bu loolu amul képp koo xamante ne génn nga dem ci biti boo ñibbisee say yére say dàll bagage yi nga yóbbu woon na nga fexe bañ ko dugalaat sa biir ay néeg yére yi nga xam ne yóbbu nga ko na nga fexe ba weer ko ci naaj bu dee bëccëg la bu dee du guddi nga bàyyi bu dee du bëccëg nga bàyyi ko ci biti mu fanaan boo yeewoo itam nga fóot ko mais bu ko jël delloowaat ko si biir armoire wala nga delloo ko si biir ay yére ndax bu fekkee doomu jàngoro mu ngi ci mën na faa toog te loolu wóorul ñi nga xam ne itam ñoo yor ay njaboot na nañu fexe ba tey xale yi jamono ji xale yi nañ leen gën a denc parce que science wane na ni xalé yu bare ay porteurs euh, positifs lañu mais dañuy nek ay porteurs sains c'est-à-dire que xalé bi mëna am doomu jangoro bi te du ko teurel te du feeñ ci mom ci benn anam mais bu duggé ci biir kër gi dina wàll ay wajuram dina wàll ay mamam dina wàll ay dëkkandoom donc pour éviter lolu xalé yi buñu ñu leen ñuy fo ci mbéd mi ndax té jamono ji jamono yi moytu la du jamono bàyyi ay xale ñuy jaxasoo ci mbedd bu fekkente ne xale yi tamit munu fi ñu ne mënuñoo ñàkk a jaxasoo yeneen xale nañu fexe moytandiku xale yi di jaxasoo ak màgget yi ci biir kër gi parce que màgget yi ñëpp nangu nañu ni feebar bi dafa xaw a euh, yàpp euh, seen seen seen seen wér-gu-yaram te mën na indi loraange ci ñoom kon nañu góorgóorlu aar sunu ay mag denc sunu ay mag ku ci yor mag moo xamante ne mu ngi ci biir kër na nga fexe ba mag mi bañ a jaxasoog nit ñi ngeen di fexe ba mag mi bu ngeen ko beru completement itam na ngeen def ay gestes barrières yoo xamante ne mooy tere nit ñi di ñëw ci moom di ko indil doomu jàngoro bi ndaxte doomu jàngoro bi mu ngi ci biir réew mi mu ngi law ndànk-ndànk jamono ji ñu toll ku nekk na nga moytu parce que kenn xamul ku ko am ak ku ko amul kon nag fagaru nañu gana fagaru nañu taxaw tembe ndax feebar bi de yaatu ci réew mi ndax nous toll les principaux concernés parce que ci suñu biir lay jaar di law kon kenn ku nekk na nga def effort mu bañ a jaar ci yow soo mënee toog nga toog soo mënul toog nga def geste barrière yi mooy tondiku sa diggante ak sa moroom di takk masque boo xam ne da nga koy yëkkati di ko sànni di takk masque boo xam ne bu tilimee da nga koy fóot loolu moo gën mais masque tissu yi la ñuy fóot masque yi ñuy jaay ci pharmacie yi yooyu boo ko utiliser boo paree danga ko war a sànni waruloo ko utiliser waat wasalaam loolu laa bëggoon waxtaan ak yéen di ñaan ngeen wasaare vidéo bi ndax muy gën a yaatu kenn ku nekk jéem cee bay waaram yal nañu yàlla musal